mooy seen li nga xamante ne noonu la ñuy dundee maanaam mu gën a am mu gën am tawféex parce que gis nañ démb sax ñi nga xamante ne mu di kolobaan tey démb li nga moo di ne moo di moo di euh, euh, nguur gu ba nguur gu bees gi xamante moo fi toog barki démb parce que dañ jàpp ne bu na ko def bu tabaski jubsee mu bàyyi mu ubbi marché yi gars yi liggéey mais dañoo gisee gars yi toog ñu commencé te li nga xamante moo di déguerpissement yi ñu ngi si joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne moo di maanaam seen ministre de l'intérieur euh, da loo xam ne compétence la compétence su li amoon fa mu amoon mairie Grand Yoff maire dañ ko fal mu am ay pouvoir mu am pouvoir ci marché yi bu jàppee ni ni ñu taxawee baaxut. Mhm. mën na waxtaan ak ñoom wala mu jël mesure yu ko yoon may pour mu doxal ko. Mhm. cest à tey xam nga aussi am na loo xam ne nit ki il faut être faut être honnête dans la vie ab dëkk soo ko bëggee defar da nga koy teg ci dëgg doo ko teg ci kii àndoon ak man àndoon ak man ce n'est pas parce que nit ki tey woteel na ma ma mu nekkoon ci lu yoon dama ko tey bàyyi. c'est pas ça Dakar dafa di dëkk ville mooy la capital du Sénégal dañ ko war a dañ ko war a aménager mhm. dañ ko war a urbaniser mhm. dañ ko war a organiser ñi nga xam ñoo nekk ci secteur informel bi mais y a un programme spécial pour ça dañ leen war a organiser structurer leen mhm. xool nu leen appuyer le ministre bi ko yoree ñu ngi koy dogo fal l'aide de politique sectorielle mi ngi ko jóg a jóg démb ministère am defagul sax organisation structuration nommeegul ay directeur am donc dafa ñëw am situation bi ñu fi fekk boo xam ne ci mbiru mairie bi la mairie bi jàpp ne ñii ci marché bi dañoo nekk ci kaw tali bi. war mhm. waruñu fee nekk mu waxtaan ak ñoom xool nu muy def est-ce que dañ leen fay jëlee. Mhm. est-ce que dañ leen di may ba tabaski jàll. Mhm. mais tout compte fait mission bi mooy lu ñu def rek mu ne ci dëgg ak l'intérêt du Sénégal. pas fii laa fo far. wala faruma fii parce que pour bañ loolu moo tax le président de ci poste secrétaire général bi mu yoroon ci parti bi. wane ni moom il est là pour tous les Sénégalais. il n'est pas là pour les. pour les gens de PASTEF il n'est pas là pour la coalition Diomaye il est là pour tous les Sénégalais. Sénégalais. maintenant que le Sénégalais mu bokk PASTEF mu bekk APR fu mu nekk na ne ci dëgg. d'accord lu mu nekk newul ci dëgg yoon dana ñëw wax ni ko lii du dëgg lii la war a def. effectivement bi mu am nag muy la bas peuple fal ko mhm. xam naa ni da ci jël ay matuwaay ba ñooñu nga xam ne moo ñëw secteur informel bi. Mhm. mu taxaw leen taxaw boo xam ne yaakaar bu ñu amoon ci moom. Mhm. ba reste Sénégal ba ñu jël gaal yi yaakaar boobu mu réaliser ko. merci